nekk ab village bu nekkee ci commune bu Malicounda fii nii nag coowal lotissement moom moo nar a jële askan wi fi nekk. ñenn ñi tuddee seen bopp kuréel gi nga xamante ni day sàmm lépp lu jaarale yoon mbiru dëkk bi ñoom nag nee nañu lotissement bi nga xamante ni moom moo fi jot a am jaarul yoon loolu te sax ñu ngi joxañ baaxaamu tuuma ki nga xamante ni moom mooy maire commune bi. dama leen koy wax man xaalis bu ngeen weddee fi nga xam ne fa la lotissement bi yemoon 2009 su ngeen fa demee yokku nañ lotissement yi ñan ñoo ko lotissé ak lu tax ñu koy lotise nañ ko leeralal numéro bu mujjoon. bu ngeen ko xoolee si si nga xam ne tey jii fa la numéro kër yi nekk dañ ko yokk du lotissement depuis 2009 ñu ne 48 parcelle dafa réer xanaa kër basan la bañ koy lem suuf kañ la doon basan bañ koy lem. ñii nga xamante ni nag ñoom ñoo fare si beneen wet ga ñoom nee nañ ñii kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko jëmale ko ci mbirum lotissement bi dara du ci dëgg. waaye tamit lépp loo xamante ni transparence la maire bi moom mu ngi ciy dox. ñoom dañoo ñëw tey ji laax ni wax ko. ci turu ne dañoo am collectif xaw ma pour l'industrie mais ñoom moo xamal la ñoom ñëpp ay politiciens lañ ñoom ñëpp ay politiciens lañ parce que ay membre Pastef lañ manipuler ay xale ñoo tab seen ginnaaw di leen wax loo xamante ne ci forcé bi dara amu ci nit ki nag fekkee da nga engagé wu fu politique amal courage jàkkaarloo ak sooy ñooñ ne leen dama engagé wu politiquement moo gën ngay lëre nit ñi. mu nekk nag ab coow loo xamante ni ñaari parti yëpp ñu ngi koy coow ci biir dëkk bii di Pointe-Sarène ñi woo ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo indi woon waxtaan wi ngir meer bi indi leen ci ay leexal ngir ñu mën a xam bu baax a baax naka la ñuy def waaye lu ko may combat bi dinañ ko continuer ci yeneen wet ga ñi nga xam ne ñooy jàppal tànk maire bi ñoom nag nee nañu mbir mi leer na ba noppi ñii dañoo jug rek ngir yàq.